nga bëggante Cheikh El Hadj nee na bëggante waxtu wu jot dañ ko war a feetal moom bëggeel bëggeel nag la wax bëggeel mbëggeel la wax ni waxtu wu jot dañ ko war a feetal waxul bëggal dañ ko war a feetal waxul xemmem dañ ko war a feetal bëggal la wax bëggal bariwul xarit bariwul weddi mbëggeel bariwul bu dee am na nag man gisuma ko na wa jaala war a wa rahmatan yàlla nee na maa def ci diggante góor ak jigéen mbëggeel goo xam ne bu fekkee ni mbëggeel ga am na ñaa ngi koy xamee ci yërmande ga soo amee ñaari téeméer jox ko soxna si mooy la yow loo doon def ci àll bi boo amee téeméer indil boo amul kay ñëwal dangaa sonn ma dem lijjanti loolooy mbëggeel waaye na ñëw rek kooku bëggal la daf la bëggal daf sa alal yow it nga xemmem gannaawam kii day xemmem kii day bëggal waaye mbëggeel ci boppam dañ ko war a feetal jamono bu jot jamono fa fi taj dii di ndax yaa kulli xiinin maw doo ko bind sooy weddi weddi ko mbëggeel dañ ko war a feetal xoolal ñi góor ñi toll nga bëgg ci benn góor dootoo gis benn góor doo xalaat benn góor moom rek nga bëgg xoolal ni jigéen ñi toll mu bëgg la yow rek yàkkamti naa wàcc ba ñëw yàkkamti nga ma wàcc ba ñëw kay ngaa wàcc ba ñëw yàkkamti ngaa wàcc eh, wàcc ba dem waaw kay waay wa jaala baynakum mawaddatan wa rahmatan waaye su dee xemmem ak bëggal nag kooku moom marché mbëkkante la marché muusante la marché teelante la waaw ku jekku sa morom rek mu dee waaw ku jekku sa morom rek mu dee mbëggeel nag moom mën nañ koo feetal feetu nag mbëggeel kan feet di ko di waaw kay di ko bégee di teral ka nga bëgg mu di la teral loolu lañ ca namm waaye du nekk fii jënd ay fleur jënd ay pot jënd ay li xoolal fi nga jëndee fleur indi kii jënd lii indi ngeen xoolal fi ci diggante bi ba ku ne ku ne meer gàddu gàddu sa gàddu sa football la nga yore woon mais xam nga ne bëggoo ko bëgguloo ko mbëggeel menn mi nag laay wax soo bëggee góor góor bëgg la boo liggéey yàkkamte wàcc soo liggéey mu yàkkamte nga wàcc soo ñëwee mu doog a soo liggéeyee mu gelu la waaw kay waay kii moo la bëgg euh, am na benn jigéen ci duratul xarida jëkkëram dafa dee ñu ñëw wax ko ko fekk mu ngi ko mu dégg kooku nuyoo mu teg musóor gi ci bopp bi jigéen daawul nangu ñu gis boppam liggéey nag li jigéen ñi léegi nag salon la ñuy dem xattar beku xeesal meesu mel ni mel ni yàlla amul yàlla ci boppam moo amul gëmuñu sax yàlla ñu ñëw ne ko sa jëkkër dee na ci accident mu ne abal ma ràbbu gi ñu abal ko mu bënn bët bi bënn bët bi ne sama ñaari bët yi kenn góor la doon xool mooy ki ngeen ma tàggee ne dee na lii muy mbëggeel waaye bëgg koo xam ne yaa ngi naan ko yow laa bëgg nekk yaa ngi juróomi far juróomi far am nga ko ba pare ni sa jëkkër ni ma la bëggee ni ma la nii dama la naa dama la ni fekk am na keneen koo gën a bëgg ti sa jëkkër loo jëlee ci sa jëkkër jox ko yow yaa ngi jëkkër yaa ngi far dana jeex dana jeex yaa ngi jëkkër yaa ngi far dana jeex waaye ku yem ci sa jëkkër rek muy sa xari rek di sa aji bëgg rek nga téye ko rek kooku yombul waaw yombul de waaye fa feetu bëggal bëggante bëggante laa bëggante ndaw si bëgg na góor gi bëgg na noo koy xamee yërmandee ne seen diggante góor gi dana yërëm ndaw si ndaw si dana yërëm góor gi waaye koo xam ne bu feebaree yow góor nga wuti keneen ti ngay uti du du sa jabar ndaw si dana dem ba ne sama jëkkër mënuma satisfaire dëgg la damay dem ci diw mën na ma satisfaire sama jëkkër mënuma satisfaire diw moo ma mën a satisfaire te diw du sa jëkkër nga def fii ba pare doyaloo nga dem cake kee ba pare ne ko yow yaa ma mën a satisfaire yow tasoon sa sëy ñëwoon ci kii moo gën tasal sëy sëy bi nga ñëw ci kii moo gën mais li ngay def sa jëkkër xamu ko man xaw ma ko keneen xamu ko mais yàlla mi am solo xam na ko yàlla mi lay gunge foo jëm xam na ko yàlla mi la topp foo jëm xam na ko kon am jëkkër am far du wax du wax sa jëkkër daal bu la satisfairul seeti ku la satisfaire ñaan ko baat yeewee ku dem ci ko gannaaw yow moom baana baana nga rek baana baana nga rek yow daal fu jeex nga toxu feneen baana baana bu ñëwee toolu mango su jëndee tool ba mu jeex day dem ci beneen su jëndee boobu ba mu jeex mu dem ci beneen su jëndee boobu ba mu jeex mu dem ci beneen ba tool yi yëpp mu rak toog ànd ñépp léegi ma ma macha allah am na loo xam ni xëy na du ñàkk tamit ci bé bé ñoxtaanee ko tamit ci mbëggeel na oustaz seetlu na ni jamono yi xëy na ñoo ngi ko doon waxtaan léegi mm-hmm. divorce gi dafa bari. auparavant ñun xëy na dañ doon seetlu ni demal sa kër papa diw ñu may la diw sëy boobu mooy gën a yàgg kay yow nga jógal doxal sa bopp wax fa lijjantil nga sa bopp day mel ne sëy boobu moo gën a gaaw a tas. waaw xam nga euh, bi nga lijjanti da ngaa rek ndaw si. nag ma wax naa la wax benn affaire jigéen dana ànd ak góor di muus muus di muus muus bu ba góor nga yegg ci kaw ne ko dinaa la takk xam nga ne man bu ma la takk bu ma la doon do du ma la doon takk konoon lii du ci am nangam nangam jox ma sa bopp lii laa mais au lieu ndaw si am maayin boo xam ni xel moo xam ni ne ko kon takk ma kay takk ma ñu def rek farata waaye ma jox la sama bopp nga doog maa takk mais est-ce que da nga ma wóoluuti mais góor gi dootu la wóolu bu la takkee sax dootu la wóoluti bu la takkee du yàgg parce que day xam ne doo jànq moom xam ne ne doo jànq yow xam nga ne doo jànq te moom moo dindi jànq gi léegi looy defati moo waral jigéen topp góor ne papa bu dul kii duma sëy du mbëggeel papa bu dul kii duma ma sëy parce que dafa dindi ndawam te keneen ku mu dem weeru mu bëgg a yem ci kii kii nag nee na ko danaa la takk mais du yàgg ñu takk sëy bi dem ay quelques jours sëy ba tas su ko defee ndaw si nag góor gu mu amal affaire ne la man damaa amoon jëkkër damaa amoon jëkkër loolu rek la ci nam fekk yàlla xam na seen yëpp seen xam na ne ndaw góor gee la def noonu góor gi nga sëyal góor nga teqale ko ka nga dem naan ko dama amoon jëkkër mais avant ngay am jëkkër lañ la def li la def moo waral sëy yi di tas mais bu fekkoonte ne xale yi dañoo bàyyeeg parents yi seen bopp parents yi dox sëy bi xanaa xamoo ne mag dana toog ci taatu garab di séen lu ndaw nekk ci kaw garab du ko séen dëgg que mag dafa yàgg ak yàlla su fekkee ne nag jox nga mag mbir mi mu doxal la ko seetal la ko seetal la ko ci baati nag lépp ba gis fuñ ko joxoñ mu dem dugg foofa soo ko takkee boo ko sëyee moom da ngeen yàgg waaye su dee yaa seet mu neex la nga dugg ci yaa seet mu neex la nga génn ci rek da nangu sa jëkkër yilif la nga nangoo nekk njaboot waaye doo ma ëpp fayda doo ma ëpp fulla damay jaayanteeg yow damay defanteeg yow nii mais loolu du wéy jigéen du jaay jëkkëram dara lu dul jël boppam yépp dugal ko ci jëkkëram du ko jaay ko jaay dara bu amoon juddu bu muy jaay dana nangoo sëy ak moom kon lu muy jaay amul loo mën a jaay ci àdduna góoree sa jëkkër yi féetee kaw yaay féetee suuf ba àdduna tukki góor mooy sang jigéen mooy njaboot njaboot day topp ci kaw kilifaam nangu mu yilif la su ko defee ànd bi neex sëy boo dégg ñu naan sëy neexul sëy neexul bañ neex bañ neex nga war a ànd ki nga àndal ngeen di ay kal nga di ko tooñ ngeen di bëri guddi gi yëpp ba seen doom naan waaye yaay yéen itam ngeen koy xam seetal lool waaye yaay yéen itam du ngeen bàyyi xam sëy neex na sëyul léegi neexul ah. dañuy ñaan jëkkër ba dugg ci naan sëy neexul waa ji sëyul léegi neexul kiñ lay ñaanloo ne la mu takk ma nee naa la xam na ko ba dindi ndawam ndaw googu la bëgg a maski ak kii su sëyeeg moom ba pare nag tos sëy ba wuuti góor gu mu bëgg wala góor gu mu bëggal c'est sa sëy dund sëy neex na sëy sa doom bàjjan sëy sa doomu nijaay sëy ku la kalanteeg yow koo xam ne bu la gisul woo la bu la wooyee tooñ la saaga la fii nangam nangam nangam sa bopp bu réy bi ni ngay soof doo ñëw xanaa nga ne waaye waaye maa ngi ñëw waaye ñëwal waay yiw man dem ba léegi lekkuma waaw kay waaye eh, kañ kañ ngay ñëw mu ne kañ ngay ñëw mu ne samedi nga ne ko waaw toogal nopp lu baal ti ni <laughs> seetal loolu toogal nopp lu baati ni mm. xam nga ni kii bëggu kii bëggu la dalaa bëggal nay ñëw rek yow daal dee ko jox muy fas demal sa yoon waaye li ci kanam rawul bët mm-hmm. ci kanam rawul waaye yow bu neex ay bëri laajal sëy yu jëkk ya mm. laajal sëy yu jëkk ya mm. tooñante kafante bërante lépp dana am léegi nag sëy boo couple boo gis këj rek fooñi lañ dëkk fuññi rek ñoom ñépp nga dëkk fooñi ku nekk ne fuñ fuññi rek soo ñëwee ci kër gi danga nga naan doo xam ne sax jëkkër joo xam jabar ji jëkkër jàng ci télé ba ndaw sànq néeg bi wala ndaw sànq ci eh, jëkkër jàng ci néeg ba ndaw sànq ci ba moom duñ bokk benn heure hmm. bokk fenn toogandoo fa ba heure du jot duñ ko def hmm. mais bu jëkk nag maara day taal dafa neexoon nee naa la daan nañ bëri ba xal yi naan waaye yaay yéen itam yaay yaay yaay leen di ngeen e xam ñafu leen fële wala sa nga dégg paa bi ne wax na dëgg waaye yow itam nañ wàññi coow li waaye itam rek mu songaat ko cuqataan fii yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam na boo amee jabar bu dee ndaw la bala ngaa sëy moom na nga foog moom foog moom foog moom foog moom ba sa xol dara nekku ci xolam dara nekku ci ngeen profité sëy su ngeen bu ci ëmbee rek mu am doom ju baax waaye jigéen ju tëdd rek ne maa ngi nii man daal maa ngi nii yow it nga ne ci di góorgóorlu mel ni kuy sëy ak am néew xanaa xanaa néew sax du ne maa ngi yow nga mel ni ku yorum néew rek mu jaaxaan rek ne nii léeg-léeg sax ma yor téléphone am ne nii nga necca necca necca ba doyal mu defaraat sërëm alors na nga def ça va ça va def nga dara mhm. gis nga dama balaa balaa ñu caa yegg ma wàcc la wallaay dëgg maay mhm. maay mhm. sama xaay di wàngo ah duma ca boole ñetti wàngo de ah may wàngu xaalis bi di wàngu ma boole ci ñetteelu wàngu du am moom kay dañuy mën a sëy xam ne yàlla dogal na suñu diggante ñu jéem a trouver terrain d'entente di kaf di ree di namanteeku nangam nangam te muy dëgg nag mm. te muy dëgg bañ a doon ay duutante mm. bañ a doon ay pexe bañ a de eh, am góor goo xam ne yaa ngi seq ak moom di kaf moom di foonanteeg moom di raayanteeg moom di defanteeg moom lu ne sa jëkkër xamu ko waaye yàlla xam na ko te koy naan di nëbb boo jëngee feeñ te yaa ngi naan di nëbb da nga mas a jëng